الشيخ العلامة العارف بالله سيد محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الله الشناوي التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به في إتحاف الخلل وفي شرح الحجر السيفي إزناد متصل من أول كتاب إليه قال الإمام القشيري في التحبير وإنما يلذ حلمه لرجاء يلذ حلمه لرجاء عفوه لأنه إذا ستر في الحال فالمأمول منه أن يغفر في المآل بلطفه إلى آخره كون جتاي بي ويس نيغي يمونتي بي حزب سيف يا غفور يا شكور يا حليم يا كريم يا صبور يا رحيم كون غيس غفور شكور ci xalimu lañ nekkoon wax ne xalimu mooy kii dénnéerlu subhaanahu wa taala maanaam kon moom mooy ki nga xamante ne du gaawee mbugal kooku moom mooy xalimu wax lañ tamit mooy maanaam moom mooy ki nga xamante ne dafay jëllale di jéggale bàkkaar yi di suturaal ayib yi tamit mooy xalimu wax lañ tamit ne moom mooy ki nga xamante ne moom mooy sàmm ak ñeewante ak cofeel di rafetal kóllëre ba pare di wéyal ak maanaam dige bu mu dige wax nañ tamit ne moom mooy nga xamante ne moom mooy jéggal ginnaaw bi nga xamante ne suturaal la wax nañ tamit ne xaliim moom mooy nga xamante ne moom moo lewet di dénnéer ci jaamam yi te di jéllal di jéggalee seen ñaawteef yi di ko jéllale loolu yëpp tam wax nañ ni baanaam baatu xalim loolu lay tekk cëru jaam bi nag ci moom moom mooy mu ko dénnéerlu googu maanaam lewet googu di ngar dajoo maanaam ci nit ñi maanaam wala boog mu yenn bakkanam boog ah, ngar nit ñi wala boog mu yenn bakkanam itam ci di wan mer ak di fay dégg nga mer gu tar googu mu koy wan ak di fay tàkk tàkku mer ci lewet gi muy lewet ak sedd gi mu sedd voilà ba ñu nekk koo xam voilà kon ba mhm. mhm. ñu nekk tàng quoi waaw daal buñ ne njaay rek mu mer waaw <laughs> tëj kaas yi quoi rajaxe taawal ci loo xam ne daanaka njoxal njaay rek la waaju wax yàlla ñaar sax léegi mu ne qaala wax naa al imaam al Qushayri mooy Abul Qaasim rahmatullah fi tahbiiri mu ne wa innama li am ba des mooy yu lazzu def na bànneexoo xilmahu ak lewetam li rajaa ngir yëkkati ngir ngir yaakaar afu yi ak jéggalim walla ak jëlalem lenn na ndax moom borom subhaanahu wa ta'ala iza satara bu fekkente ne sutural na fil xaali ci xaasi nii falma umulu lañuy yaakaar ci moom minhu minhu ci moom an yaxfira moom mooy mu jéggal fil maali ci lu ñu dëgg moom bi lutfihi ci lewetam ci hmm? ci lewetam voilà kon borom bi subhaanahu noonu la nag bu ñu yaakaare maanaam euh, li tax euh, xel manaam ak dënneerlum ak lewetam maanaam ñu koy ñu ci bànneexoo di ko yaakaar di di di di di di di di ko bàyyi xel dëgg mooy ne le fait day tax ñu mën a yaakaar ak ñeewante ak ak ñeewanteem voilà ak noonu ndax ndax lan ndax moom borom bi su suturaalee tey léegi nii li ñu yaakaar ci moom mooy mu jéggale ci ëllëg ci leetam maanaam kon dénnéerlu gi looloo tax ñu looloo tax ñu ci mën a bànneexu maanaam tey buñ toogee ne ñun boobu ba léegi ñu ngi def yu doy waar yàllaa ngi ñuy suturaal rek maanaam mi ngi dénnéerlu parce que dénnéerlu gi mooy loolu mooy le fait que jéggal maanaam instant bii nii war na noo mën a duma léegi nii parce que dañ def bàkkaar léegi mais defu ko day day néegi ko mu xaar maanaam di di doxaleeg ñun comme nam daan doxaleeg ñun ba ñu ko tooñagul voilà <laughs> voilà muy doxaleeg ñun comme nam daan doxaleeg ñun bu ñu ko tooñagul voilà <laughs> voilà loolu mooy dénneelu bi voilà loolu nag dañ ciy bànneexu pour parce que lu tax dañ koy dañ ci dañ koy bàyyi xel maanaam du ne du duñ ko def pour pour jàppe ko yoonu tool pour jàppee bàkkaar bi yoonu tool déedéet mais pour yaakaar ne borom bi subhaanahu wa ta'ala kon de dinañu jéggal segam moom suturaal nañu daal déjà parce que jëf ji def naa ko baaxul daaw ba ren maa ngi koy def bis bu ne ma def jëf ji daaw ba ren wala boog bari na lu ma koy def mais ba tey tey tey sa borom mi muy suturaal ba tey sama borom bi mooy sutura waaw non seulement kenn gisu ko mais kenn xalaatu ko waaw kay non seulement kenn gisu ko mais kenn xalaatu ko. Allah Allah Allah loolu mooy dénneerlu bi muy dénneerlu voilà mais nag loolu war ñu ko loolu nag dafa war a tax ñu ne ah. comme moom mi nga xamante ne mbaaxam tax na ba mu suturaal ñu ko. prise de conscience. voilà mbaaxam googu tax mu suturaal ñu ko moom même mbaax gi ñi ngi yaakaar ci même mbaax googu mu tax mu jéggal ñu ko. Hmm. aussi hmm. mais mais dafa war a ànd ak. daw làqatu ci ginnaawam ngir yaakaar mbaaxam ngir yaakaar njéggalam ndax loolu mu yaakaar loolu ko wutale ak xemnam bi yaakaar gi mooy damay def luy wane ne maa ngi mooy te ko maanaam maa ngi bëgg dara loolu mooy yaakaar waaye bu dul loolu moom xemmem lay tudd loolu lañuy ñuy xemmem non envie envie entre espoir et envie voilà juste con voilà convoitise envie mm -hmm. voilà convoitise envie Envie, envie le gën de sens tu tamaa mhm. sens bi mhm. parce que l'œil de l'été qui convoitise mhm. ak fiché fi shay'in moi am di convoiter dara nekk ci dara di ko wut di di di xemmem xemmem boobu waa ci daal sa xel di voilà mais euh, fii nii xemmem maanaam contraire u raja lay tekk maanaam yaakaar yaakaar ak xemmem boobu foofu loolu waaw même temps même bële sax boo xoolee sens bi day dellu si wax ci convoitise da ci dellu si waat ci ci ci ci ci xemmem ndax en fait mooy damay toog di di sama xel di nekk ci dara rek ma bëgg mais defuma dara luy tax ma am loolu waaw loolu lay xemmem alors que yaakaar yaakaar mooy damay toog bëgg dara def lay tax ma jot sa mais après nag ma ma commencé yaa am yaakaar waaw ma commencé am yaakaar mooy comme exemple bi ñu feral di joxe rek bu dee chèque am nga contrat fenn ci benn entreprise ngay xëy di liggéey ah am nga droit yaakaar chèque voilà am nga droit yaakaar bu si ñeen la chèque loolu yaakaar la tudd mu neexaa ah, fi toll de xam naa bu weeru dee moom yaakaar naa ñu jox ma chèque ko nanga waaw espoir voilà c'est l'espoir <laughs> <laughs> mais su fekkente ne weer wi yëpp amuloo contrat xëyoo boo toogee naan man day cëy buñ ma signé noonu chep dama ji voilà loolu moo tudd xëy moom <laughs> voilà <laughs> voilà voilà inna rajaa la fi waadin kaza tama'un del tegtaloo dara door a yaakaar dajug alal ya waaw suñ boobu ko wax ko voilà ala kulli xaal kon loolu la maanaam il faut ngay nekk ci voilà voilà ndax lan ndax sutura gi mun a suturaal tey léegi nii nii nii moom yàlla ah <coughs> moom moo war a tax ne li ñu war a yaakaar mooy mu jéggal ñu ci ëllëg maanaam comme sutural nañu ko tey ñi war a yaakaar nag xanaa mu jéggal ñu tam ci lewetam hmm. dégg nee na fii baadu nekk na ci leen al xikaayaati nettali anna baadahum ne nga ñenn ci ñoom maanaam kenn ci gaa yi ru'ya gis neef na ko fil ci gént faqiila ñu wax la woon neen ko ma faala ana nan la def allah bur yàlla bi ko ci yow fa qaala mu ne téer bi amee nii ma daal hmm? na ma am kersa ci ma jàng ko fa qultu ma ni ko allahumma yow bur yàlla ilaahi yow mi nga xamante ne yow buur yàlla mi turi rafet rek ma la yëkkati ilaahi yow mi nga xam ne yow yaay ci sama buur bi may jaamu laa taf dax ni waaye bul ma bul ma bul ma gàccal bul ma ah, bul wuññi sama sutura fa qaala mu ne xiina jamono ji nga xamante ne amiltoxaa maa ngi ko doon jëf ah, walam tastaxi te amuloo woon kersa Hmm? lam afdaxka duma la maanaam maanaam lam afdaxka yàlla borom bi subhaanahu wa taala ne ko nee na ko yàlla dane ko amil xiina amil taxa jamono ji nga koy jëf jëf ji walam tastax yi te amoo woon kees sa jamono jooja ba nga koy def lam afdaxka gàcce lu ma la woloon maanaam wuññiwu ma woon sa sutura xaaw yu ma woon sa sutura afa afdaxuka waa ndax danaa xaawi sa sutura nag al aana tey wa anta tey wa tas tax yi yaa ngi am kersa hmm? waaw ba nga amee kersa ndey sàpp ba nga ne yaa ngi jëf jëf ji amoo ci benn kersa ma suturaal xaawi sa sutur tey jii est-ce que yaa ngi nga nekk fii nii am kersa hmm. danaa la danaa xaawi sa sutura loolu yëpp dénneur gu la dégg nga wa min xelmihi bokk na ci lewetam dénneur lom borom bi subhanahu wa taala annahu naka moom laa yastafizahu du ko merloo du ko du ko taxa def lu maanaam lu lu du ko taxa duma dumawaat asiyaanu mooy alaasina mooy mooykat yi maanaam du tax ba tey eh, istazza mooy maanaam mu jékki-jékki lam daan def mu baax voilà ah, maanaam merloo ko nga xamante ne day tax mu mu pini la daan ne bon léegi écoute euh, euh, li ma la daan jox léegi joxatuma la ko maanaam foñu nga foñu foñu loo ko dem si déedéet foñ du ko foñu loo moom maanaam mooy katu mooy mooykat yi gis nga fi mu toll koñ bi ñu ne koñ bi ay mooy yàlla yu garaaw ñu ngi fi xew yoo xamante ne saa yoo xëyee du def effet ci koñ bi te ci lañ dëkk nag mooy yàlla yooyu ci lañ dëkk ñu ñu ñu ngi koy def suba ngoon guddeeg bëccëg waaw voilà waxuma la ko ñu mais bi rek bâtiment bi ay mooy yàlla yu garaaw a fi xew mais borom bi <laughs> taxul mu ne day màbbal bâtiment bi <laughs> taxul mu ne xéewal bi ma daan defar waa bâtiment bi naa ko wàññi wala précisément ñi koy ñi nga xam ne ñoo koy def dëgg-dëgg sax ñooñu wax wu defu leen dara air bi mu leen doon jox mi ngi leen koy jox ndox mi ngi leen doon jox noonu

non attention attention <coughs> euh, wàllu yu dëkk ferme mhm. euh, ak dëkkam fenn kese kese kese mhm. doyul mhm. doyul pour dara bañ leen nagal hmm d'accord il faut que manam deug la le fait que dara dou len dal leg leg yàlla da koy jaarale ci ñoom ci mom mais euh euh xadiis Sayyidat Aisha xam al gaza hatta iza kaanu bi bi ardin voilà mu naka la ko waxee sax xaw xawma naka la sax xawma uhlika bi awwalihim wa akhirihim naka kay wala istaxuffa bi awwalihim wa akhirihim xusifa wala xusifa bi awwalihim wa akhirihim wa mu ne kayfa sayyidina Aisha radiyallahu kayfa xusifa bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaaquhum wa man laysa fihim voilà ah, xa yonent bi saa sam ne xusifa bi awwalihim wa aaxirihim summa yab'athuhumullahu ala niyyatihim hmm. voilà xadis boobu hmm. voilà waaw loolu la jaysh ki benn groupe dafa ñëw di di suuf si voilà suuf di dem am pour dem di di attaquer benn suuf soo xamante ne bon day wax ne Makka la wala yu mel noonu voilà mhm. al ard hatta iza kaanu bi bayda wala bu ñu demee ba benn dëkk fu ñu balaas bu naan bayda mu naan ard nee na xusifa bi awwalihim wa axirihim yàlla màbbal suuf sépp seen kaw ñu njëkk ñi ba ci ñu mujj ñi ñu ne mais nag naka lañ naka lañ leen mën màbbale alors que maanaam dëkk <coughs> marché yaa nga fa ñi bokkut ñoom ñi ngi fa maanaam mooy nit ñu sell ñi ñu ngi fa ñoom ak ñoom bokkuñu woon ay affaire mu ne yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa màbbal lépp ñu début wu dëkk bi ba feewu dëkk bi la màbbal lépp ñoom ñëpp la màbbal maanaam ñoom ñëpp la def genre tremblement de terre mm-hmm. lu tax parce que tout simplement après bu yowmal xiyaamee mu ne après yàlla daf leen di dekkal kenn ku ci nekk ci sa yére voilà après yow kenn ku ci ne nag bu ñu lay àtte ñu àtte la individuellement mais terewul loolu terewul mbugal bi mbugal bi c'est collectif voilà loolu terewul loolu moom il faut que mu maintenant nag loolu dana am maanaam wàll yu mën na nekk fenn mën na nekk fenn euh, nattu bi di war a yegg si foofu mu dal ci moom benn natt war a yegg mu dal ci moom mais loolu daa kontewul ak borom bi subhaanahu wa taala di dénneerlu ndax dénneerlu gi moom réalité la rien mbugal mi proportionné wul gis nga yàlla buy teg mbugal beneen ay ay ay nit buy wàcce mbugal moom muy wàcce ci ñoom proportionné ak li ñu def effectivement voilà proportionnel ak li mais effectivement euh, euh, présence su benn nit mon sell mën sauver bon long bari loolu de la présence bien nit ku mon mën sauver bon long bari mais aussi euh, le fait que quoi que présent foofu loolu ci jëmmi incarnation lewetu borom bi ak dënneerlu maanaam eh, loolu ci jëmmi boppam rek incarnation dënneerlu borom bi la subhaanahu wa ta'ala maintenant maintenant loolu automatique wul noonu aussi c'est pas parce que rek nit ku baax dafa nekk fenn que ni dara du leen dal déedéet loolu moom loolu moom idéologie bu erronée la moom d'accord règle bi mooy waaw mbugal bu naree dal fenn nit ku sell nekk wala mu ñàkk fa nekk du ko non non non non si si parfois ah, ah. Ah, exception bi moy règle bi léegi exception bi mooy le fait que nit ku sel ki nek fofu hmm. natt mun na mun mun na ñëw foofu mais borom subhanahu wa taala ci dernier bi ngay wax léegi mu dal koku mu baña dal ñu fa nekk mu baña wala wala bok mom yalla xol ko mu baña a tax tax yegg siwul ci moom hmm. comme ni hadith bi wax am na ñoo xamante ne bu yàlla naree wàcc mbugal ci kaw suuf ñoom bu len xolé arrêté meram fay Mhm. voilà mm. d'accord mm. muy muy muy muy muy yi eh, eh, eh, ñi nga xamante ne ñoom dañuy rutaa rutaa maanaam dañuy mm. dañuy foraatu voilà ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy nàmp xale yi xale yu nàmp ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñi nga xamante ne dañuy jaamu yàlla jaamukatu yàlla yi di rukkoo di sujjóot voilà bu yàlla xoolee ñooñu mu daal di arrêté meram wa dootul wàccati si ñoom daal oh, voilà hmm? voilà loolu day am voilà donc mais ñooñu mais loolu du du du du liste bu exhaustive waaw du liste bu exhaustive mais yooyu ñooñu exemple la ci biir ñii nga xamante ne tax nañ ba yàlla du wàcc mbugal ci kaw nit ñi waaw am na ñoo xamante ne tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala defal de façon comme li aay li aay ba wala dafa allah nas ba'dhum li ba'd la fasadatil ard walakin allah zu fadlin ala hmm. bu dul woon ne jañe gi yàlla di jañe ñenn ñi ci ñi ci des kon suuf si day yàqu ma da koy alal waaye yàlla boroom gënal la ci kaw nit ñi voilà moom mooy nitu yàlla yi am na ñoo xam walla ñoom ñooy dëgg-dëgg ñoo tax ba yàlla wàccewul mbugal mi ci kaw suuf si mais ñoom ay incarnation turu yàlla yi lañ ak ay melow voilà maintenant kon ci biir loolu mooy dénna lu gay yooyu ma mais tegtalewul ne cest à li ma bëgg a wax daal ci gàttal mooy c'est pas parce que gars yi dafa am benn waa ju baax fii rek que ni dara du dal waa fii ah <laughs> loolu daal loolu laa bëgg a mm-hmm. waaw loolu laa bëgg a wax voilà mais mais aussi mën na nekk yàlla ruusaleen ko voilà mën na ne voilà xaw ba xam terme boobu jub na sax voilà en tout cas yàlla mën na xool kooku meram fay fay voilà ñu utiliser terme yi ah yu kii di utiliser xaalis yi di utiliser <laughs> bañ a bañ wax nga wolof yi ñuy wax ne daal alors que baatu rus dikkiwul ci ci kii baatu kersa mu dikk voilà <laughs> voilà <coughs> dugal xajal lañuy wax ci rus waaw moy xajal ci ki alors que bi xayaa ou le utiliser yàlla voilà yastaxyi et cetera yi yi yii yooyu tam yu mata baye xel manam expression yi ñu utiliser surtout bu ñu wax ci walu yàlla voilà voilà tawhid moom voilà voilà donc kon ñu dellusi ci ci ci lool borom bi subhaanahu wa kon jéggale gi muy jéggale hmm? maanaam bàyyi hmm, kon maanaam bokk na ci lewetam moom mooy le fait du ko foñuloo daal maanaam du tax mu mën a xaaral ma bàyyi li ma leen daan defal nangam nangam mhm. et cetera kon voilà nit ñi dañuy def lu bon mu mu di leen maanaam mu bàyyi leen ci di leen jox continuer di jox xéewal exactement yam daan def nit ñi tamit nit voilà loolu tamit beneen incarnation la ci ci ci tur bi mooy nga mel noonu maanaam nit ki maanaam tooñ la def la mais maanaam en maanaam yow warul gis sax ci sa xar kanam waxuma laa ci sa comportement que ni mer nga que lim la def lim la def touché na la naqari na wala wala yooyu voilà waaw. jafe na kay loolu kay ñëpp xam na ko waaw mu ne walla ci gaaw ak mbugale taxatuk maanaam taxatuk mooy xotti orma almuxtiina ñi nga xam ne ñoom ñooy way rëy ji way dijj yi bàkkaar wala rëy ji way rëy ji mm, njàdd waaw ñuy def yi nga xam te ne erreur kii les fautes graves faute waaw faute grave mooy muxti mooy un fauteur voilà voilà quelqu'un qui a mooy une faute waaw <laughs> waaw dégg kon borom subhaanahu wa taala kon bokk na ci lewetam tamit mooy xotti orma yi nga xamante ne moom la bàkkaarkat yi di xotti xormay xorma maanaam mooy xormay diini ji maanaam loolu yóbbewu ko ci muy gaaw di mbugalaate voilà maanaam du ne bu moment bi ngay def bàkkaar rek yar wi dal wala yu mel noonu déedéet day <laughs> dafay day day waaw dégg nga fa yàq la mu bu ko defee mu dénnéerlu xattaa mbéte yàggoon na mu njortaal jaayil aji réer yi ànd na woon moom buur yàlla lay sa nekkul yàlla mu di xam wa ak a suturaat maanaam day dem ba benn moment sax même ki nga xam ne mooy jaahil bi ku xamul dara wala moom pour moom du yàlla mooy def moo yàlla xamul affaire yi yóbbu ko <laughs> parce que moom voilà waaw ne da dafa yàlla day dafay dafay xam mais dafa suturaal waaw yàlla ma ne lay sa yàlla mu ne xamul westuro ba pare suturaal xatta mbete yatawhamu mu def def la alxabiyu ki beew ki ànd na woon nekk moom lay ne yàlla lay say soro nekkul di gis mbir yi waaw ñoom da dem ba nga xam te voilà tellement dañuy fàtte yàlla pourquoi parce que gaawul di mbugal maanaam du def ku def dara mu na la ko ci saa waaw tellement ko lool la tàmmal nit ñi tellement que loolu dafa lewet dafa baax subhaanahu wa taala tàmmal leen ko ba nga xam ne ñi xamul dara sax dañu foog ne yàlla xamul affaire yi en fait finalement finalement noo xamu parce que parce que bu ko xamoon ak affaire ni mu baree ak ni muy tegtaloo ak tegaloo ak ni mu <laughs> non kon kon dina def dara voilà ñeneen ñi ki ñu maam ñu ñu ñu beew ñi ñoom dañu foog ne yàlla en fait da ko da ko gisul sax foofu voilà intaha foofu la wax jëm kon ah, al imam Qushayri rahmatullah alayhi ci foofu la léegi kon mu dem ci beneen tur bi mooy yaa karimu yow mu tedd mi alkarim wow mën wa maana alkarim maana maana alkarim ku at ku tedd ki wow mooy alladi ki nga xamante ne yoxtu yi moom mooy joxe min xayri minnatin ci te du ñaaxe te du ñaaxe ñu man minnat moo ko ne def ñaaxe hmm? dégg day tekki tamit ah xéewal min nag dégg kon yàlla du ñaaxe xaw mooy mooy kooku ki nga xam ne day joxe rek généreusement c'est une générosité tabe te tedd voilà waaw ah day joxe rek te du te du toog naan naan li ma la jox du loon man waaw déedéet yàlla ñu yàlla sàmm wa qaala wax na al-Junaydi moom Abul Junaydi radiyallahu anhu rahimahu yàlla na yërëm ko bu boo bëggee alkarim daal nga ne waaw hmm? allazi mooy ki xam ne laa yaxawiju ko du la aajooloo ilaa wasilatin ci dig dig la maanaam amul moyen jottali ko soxlawul moo jottali soxlawuloo ko maanaam hmm? pour mën a am li dara ci moom soxlawul ngay am inter maanaam moyen booy jaar moom dalay jox de façon wala ziite moom mooy nga xam ne laayu diyaaw du neenal man tawassala ku jot jottali jëm ci ku jottali koo tamit jëm ci moom ut moyen boo jaaree ba yegsi ci moom du la du la neenal wala yatrutute du bàyyi man ke koo xam te ne iltaja dafa wéeru ilayhi jëm ci moom du bàyyi tamit ku wéeru ci moom kooku mooy ku tedd ki mooy yàlla borom subhaanahu wa ta'aala tey fi mu toll bu fekkonte ne bala ngaa ñaan yàlla faw nga dem seeti ji muudu wala sëriñ sëriñ Ibra wala ñoom ñoom ñu doog a ñaan yow ngay affaire bi doog a nangu kon boo nekkee ci digg géej gi sonn bëgg ku la xettali boo doo ko doo ko mën wala nga am aajo boo xam ne bëggoo kenn xam ko nooy nooy nooy nooy def kon ah. voilà waaw ah. déedéet moom du def loolu ah sa digganteeg moom soxlawuloo loolu soxlawuloo dem ci kenn jaar kenn pour mën a jot li ngay jot mais aussi boo jottali ci kenn jëm ci moom tamit du la neexal du neenal loolu waaw waaw ni ki noonu euh, du bàyyi du bàyyi kenn koo xamante ne daf dafa dem làqatu ci ci moom wéeru ci moom déedéet du ko baax foofu da koy da koy ta jàpp dimbali ko kooku moom mooy alkarim ku tedd léegi lan nit ki maam jaam bi nan eh, lay incarner tur boobu incarnation part de ki nan la koy dunde mu ne waxaat su cëru al abdu jaam bi min ci tur ci tur bi an yaa foo moom muy jëllale muy jéggale am man ci ki nga xamante ne zalamahu da ko tooñ la muy jokk man ki nga xam ne xataahu da ko dog wa si te muy rafetal ilaa man jëme ci ki nga xamante ne asa dafa ñaawee ilay jëm ci moom yi gisoon nañ ko ci yam na ñetti jotaay waaw ci jikko yu rafet yi nga xamante ne moom lañu ñu war a kon loolu bokk na ci voilà kon noonu la ñuy incarner tur bi alkarim maanaam boo bëggee nekk yow tamit karim yàlla ràng la turam boobu noonu ngay def da ngay loolu maanaam jikkoo yooyu rek mooy ràng na la tur turam mooy da ngay ku la tooñ voilà di baña def ne wala man kuma ton dina xam wala man kenn duma jam naa wala na fayu gitu. ba tooñar bi la dedet niki ki anu ngay jokk ku la dok wala di jokk ku la dok ko xamantene mom euh moom am ben lien ak yow wala defu ko yow ya wara a dem ci mom jokk contraire voilà voilà jokk ku la dog nag tegtalewul surtout comme mbokk yi tegtalewul nga toog rek maanaam dégguma ko dégguma amuñu rapport tooñuma ko def je lui pas de mal voilà jeex na et que moom moom ñëwul vers wala moom wóowuma duma ko woo voilà wala seet siwuma duma ko seeti dafa jàpp jàmburam jàpp sama jàmbur alors que yow liñ la laaj du loolu c'est-à-dire que moom li mu def ak def li mu deful yow loolu kenn du la ci questionné liñ lay questionné mooy est-ce que jokk nga ko jokk mooy da fexe lu jokk comme le mot le dit sil xolal man xataaka <clears throat> jokkal ku la dog ku rompre lien yi yow nga relier waat lien yi loolu la c'est-à-dire que yow yaa war a jóg def effort boobu maanaam dem jokk ko te am na nag benn affaire bu am ñu bari ko xamuñu ko benn affaire bu am ñu bari xamuñu ko mooy boobu xadis bu nekk Sunan Tirmidhi bi waxatulaa xadis bi waaw xadis ne ne ne mbokk bi muy wàcc mbokk mbokk euh, nee na borom subhaanahu wa ta'aala da ko doon wàcce nee na mu laxasu ko nekk est-ce que danga may wàcce ci kaw fuuf fekk bu ko defee ñu di ma ñu di ma dog maanaam muy metti lu loolu mm-hmm. ne nanguwul wàcc mu ne ko xanaa doyul <coughs> ci ne képp ku la jokk ma jokk ko waaye ku la dog ma dog ko mu ne ko ankay ah, mu ne ko kon wàccal c'est-à-dire fi fi ma jëm ci loolu mooy xam nga mooy yàlla rompre sa lien digganteem ak moom voilà yàlla nañu yàlla sàmm loolu mooy li nga xam ne jamono ji daawul ko tàll la maanaam non seulement feebar la buy làggalaate mais épidémie la en fait surtout épidémie dog mbokk épidémie la suñ jamono boo xamante ne lu dul lenn lenn lenn ñu néew ñu yàlla yërëm yàlla dimbali leen lool def ci ñoom xéewal guy rëy rëy ñoom rekk a ci mucc sinon ñi ci des ñépp lañ dog seen bopp yi ñépp lañ ñépp nag c'est très rare nga gis koo xamante ne jokk nañ mbokkam euh, boo xoolee Euh, parce que mbokk yooyu mooy ñi nga bokkal ba ñeenti maam maanaam ñeenti maam ci kaw ñooñu la ce qui fait que ñooñu ñëpp ñëpp tout tous ceux qui sont ba boobu da nga war a am <laughs> lien relation da nga ko war a dox voilà voilà mooy suñ jamono suñ jamono mais dañ ko naax saayal ci anam goo xamante ne dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo c'est quasi inexistant voilà te bëri ku nekk ci problème wala natt bu tar boo xamante ne mu ci génn mukk te li ko ko yóbbee mooy ne dafa dog li yàlla digaloon ñu jokk ko wa yaqta'una maa amara Allahu bihi an yusala dañoo dog li yàlla digaloon ñu jox ko mooy mbokk waaw maanaam waa ji nga ne waaye man sa mbokk yi walla man xam nga du ma parce que ñoom duñ la woo ko ñoom duñ la woo hmm? ñoom duñ la woo mais ñoom duñ la woo yow mais yow tamit woo la. et puis kenn laaju la nga ndax ñom ñing lay wo liñ la laaj moy est-ce que yow ya ngi leen di wo voilà c'est ça foofu la question bi ne après ñoom woowuñu la après ñom sen affaire mais yow nga war leen wo mais dans les mesures du possible aussi voilà yépp ci côté ki lay dugg manam dans dans la mesure du possible lay dugg voilà bu dee mënoo mënoo woon ñëpp c'est sûr mënu ne mais am na quand ñi nga xam ne ñoo ñu gën a jege encore ñi gën a encore jege al aqrabuna awla bil ma'ruf ñi gën a jege ñoo gën a yey ci njekk lu rafet looy rek mbokk yi gën a jege ñoo ci gën a yey comme ni ko xadis bi wax voilà voilà ñoo gën a jege <laughs> jege ci loolu donc man mënuma euh, toog du defuma dara jiw mu xam sama mbokk yi ci lu ñu ne jiw ma leen jokk ma fàtte leen ah yàlla ma ne ma gan par exemple euh, bàyyiwuma leen xel jiw ma sax toppatoo ndax ñoom yàlla ma ne na leen gan wala déet jéem ma ko sax toppatoo sama yoon nekku maa ngi toog fi ma toog daal di noos samay noos gis nga loolu moom moo tax nit nit su nekkee ci yenn yenn xat-xat yu kawe yu yu kawe kawe kawe première question bi mu war a njëkk posé wu première question walla boog mu nekk koo xamante ne xolam maanaam munul am munul yëg bànneexu borom maanaam jokkaloo ak boromam

parce que yàlla da ko dog parce que tout simplement yow da nga dog li nga xam ne moom nee dañ ko war a jokk te ku ko dog mu dog la voilà léegi nag jokk gi warut yam rek ci mbokk ñi nga xamante ne mbokk deret rek lañ ak la famille proche ni déedéet selon les mesures du possible ak conditions yi ak circonstances yi bokk jullit ñëpp danga leen war a jokk te ku la xanaa gisuloo ne ñi ñi julli yëkkati seen seen jëf altine bi ak alxamis bi mooy ñi nga xamante ne toog nañ ñett fan tuddantewuñ mooy dañoo dogo moo gis nga loolu pourtant duñ ay mbokk obligé wu ñu nek ay mbokk mais rien que ñu jël décision que duñu tuddante manam moy do kon dogoone ñet manam altine ak jeudi yi ba jëf yi ñi yëkëti ci borom bi diko won yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy jéggalul gaay yow do ci bokk say ñoom ñaan nañ bokkuñ ci voilà après yent bi ne sallallahu kii njëkk wax ak moroom mi moo leen moo gën ci ñoom ñaar kii ak moroom mi moo waaw bakkan bi nag dina ne la non mukk bu ko def non lii moom mooy moom déli la moom boo ko defee moom non non abadan bu ko def mais defal rek même bu dee da nga koy def ba pare dem dem di mbëkk miir bi di jooy même bu dee da koy def ba pare xëm daanu xëm def ko voilà maanaam bu diisee ci bakkan ba diis ba diis nga xamante ne boo koy wax sax boo koy def sax da ngay jooy di ko def defal <laughs> ndax dafa diis ci bakkan bi wala nga di ko wax sax après nga daanu xëm defal <laughs> ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yàlla moo seede ci làmmi ne yonent bi sallallahu ne yow yaay ki gën ko waaw <laughs> voilà deewu ko gënal garaawul boo ko waxee ba pare dee sax defal ah yent moom moo gën ki yent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën loolu jar na dee ah jar na dee kon nanga nga jox ki nga xamante ne moom mooy maanaam moo la dog voilà parce que ki nga xamante ne eh, maanaam li normal maanaam tey bu fekkente ne Euh, euh, amuñu benn kii maanaam man ak yow euh, suñuy lien vice versa la mooy su ma la woowee tey boo buñ toogee dix jours nga ne ah gëj dégg nga woo après ñu toog quinze jours ma dégg dégguma lu ma woo la après bon cinq jours après nga woo ma après vingt jours après nga woo ma ma woo mu ñuy def noonu en réalité ñun ñaar dugguñu ci cadre jokk ak dog relation bu normal la dégg balaa ñuy tudd jokk il faut que absence de relation am fi nga nga nga dem nga dem jokk. renouer renouer le contact voilà mooy jokk lu dog foofu lañ naan mi ngi jokk mi ngi jokk mbokk wala mi ngi dox mbokk moom lañuy ñuy wax naan xaw ma yi koy yi koy yi koy doxal yëpp benn benn fenn du ci sax karaw <coughs> voilà yaa <coughs> yi koy def yëpp fenn du ci sax karaw tànk <coughs> loxo ak làmmiñ waaw voilà ah. voilà dégg nga ba pare tamit ngay rafetal di jëm ci ki nga xamante ne mooy ñaawee jëm ci yow. Hmm? mu ne waqat dëgg-dëgg ashaara junj na ilaa dal maanaa ci boobu la maanaa man qaala ki nga wax ne ki nga xam ne dafa ne makaarimul axlaaqi fii salaasa

mooy le fait que mu istidlaal ci <laughs> waxu keneen alors que xadis bi mi ngi fi wax yent bi ci jëmmi boppam mi ngi fi sallallahu alayhi maanaam mu wut lay jëlee maanaam keneen utiliser waxu keneen pour def ko argument alors que waxu yent bi ci boppam mi ngi fi sallallahu alayhi wasallam voilà maanaam loolu kii la quoi euh, défaut la ci ci ci argumentation défaut la ci argumentation waxu ti bi ne fi sallallahu alayhi wasallam ngay utiliser waxu keneen défaut la tamit ci argumentation euh, euh, par exemple xadis même benn xadis xadis boo xamante ne par exemple mi ngi ci saxeex yi ne nga utiliser xadis boo xam ne nekku ci parce que degré bi moo tax degré bi voilà. mais yëpp ay dé voilà wala waxu waxu waxu ñu njëkk ñu ne fi comme ñenn salafi nga utilise waxu ñu mujj ñi xalafi voilà comme waxu imam Malik imam Shafi waxu Sufyan as-Sawri mm. ñooñu buñ fi nekkee wala ñoom Zuhri wala ñooñu moo gën a dëgër ke ngi waxu waxu comme ne ñoom Nawawi ñoom Suyuti voilà ci ginnaaw voilà hmm? Hmm. dégg nga kon nee na kooku dafa ne woykat bi dafa dafa junj maanaa ci ne makaarimul axlaaq te daa ngay jukkee fii salaasat ci ñett la nekk man kamulat képp koo xam ne mat na fii ci moom fasaaka kooku alfata mooy camsi kookoy camsi maanaam waa jàmbaara ji quoi ki mat a tàgg maanaam góor pire allah allah i'ta mooy joxe man koo xam ne yaxramu yaxramu da koy xañ wa waslu man ak jokk ki nga xam ne yaxta'u da ko dogal afu ak jéggal an man i'tada walis ki nga xamante ne dafa dafa jalgati waaw kuy jalgati nga jéggal walillaahi kawtéefu gi yàlla hmm. durru ci mbaaxuk al imam imam bobo nga xamantene ne mooy Acharnubi rahimahullah hayz yaqul bi mu naan afwa an jahilin qad baxa alayka tafuz bil maqam al amin wa bil urf fa'mur wa kun muhsina wa waasil wa'rid al jahilin an al jahilin wala xus jilal jàppal al afwa jigal ma ne ko ya xatamit aaya la voilà c'est-à-dire que loolu tamit beneen problème gis nga moom mooy li wax léegi maanaam aaya alxuraan mu ne fi xadiis yi sallallahu alayhi wa nekk fi ñoom ñoo gën a leen yelloo ci ñu argumenté leen su paree nag doo ko indi wax yi waaw voilà daan maanaam mu nekk xeetu mottalikuwaay wala bokk ne kii tëkkoo tënkee nii maanaam xeetu wax wax voilà mais quant à aaya alxuraan ne fi xadiis yi sallallahu alayhi ne fi ngay jël wax keneen. waaw ah, loolu du argumentation bu kii voilà du istidlal bu kii maanaam ak défaut de ci istidlal voilà parce que ñii seen wax jii nii amul doole maanaam ku nekk mën naa ñëw ne d'accordul tey ku ñëw rek mën mën ne ne man d'accord ma wax ji d'accord ma ci alors que bu dee alxuraan la ak la moom kenn mënu ne d'accord kenn du ne waaw te attention ah parce que gars yi bëri dañ foog ne bu waa ji waxee nga ni d'accord da ngay alku dara du la ci fekk bu fekkente ne <laughs> da ngaa jàpp ne <laughs> ah mais parce que loolu nga gëm d'accord wa yàlla yónniwu ko ci yow d'accord loo effectivement mais mais d'accord ma googu na bañ tegu ci rëy wala bañ dëgg wala yu mel noonu voilà mais parce que loolu moom dalay alak bu fekkee nit kooku nitu nitu yàlla dëgg la nii dalay mun na la alak voilà même mais xam nga ñu bëri comprendre ci ci ñàkk d'accord nit yàlla ñu bëriwul comprendre luñ sew sa bopp ñoom dañoo foog ne quelque fois à la boo leen bokkul li ngeen boo leen d'accord rek da ngay am affaire bi nag demewul noonu <laughs> yàlla yàlla moom yàlla lu toll ne al alak alak jaam tegu ko non bàyyiwu ko kenn lu toll ni jaamam yi da leen bëgg de. non <laughs> voilà bàyyi non seulement bàyyiwu ko kenn mais ba pare tamit tuutalu ko voilà. du bu ndaw. voilà du affaire bu tuuti voilà cest diir dire que lii tax mu loola di am lu rëy lay doon voilà lu rëy loo xam te nit ki bi nga koy def da koy tey voilà ànd ak mauvaise foi ak yu mel noonu. Mm-hmm. mais pas parce que dafa juum nii rek mais dara du ko ci fekk dara c'est comme si sànni far defu ko parfois voilà ki nga xam ne li nga wax ji nga xamante ne moom moom li nga xam ne moom ku ko def ak nitu yàlla moom da ngay al mooy noonoo ko parce que daa baax xam nga loolu am na voilà am na ñoo xam ne dañ dañuy noonoo benn nitu yàlla parce que euh, dafa kéemaane maanaam de telle sorte que dañ koo iñaane wala ñu soxore ko wala ñu mu nekk ku baax mbaax googa di leen di leen froissé hmm. ñu iñaane ko wala wala ñu mer ñu ñu def ko noon wala ñu bëgg koo ñu bëgg loola mu dakk maanaam doxalinam bu rafet boobu wala yooyu dakk tous les moyens wala boog euh, euh, ñu koy contredire ngir tuutal ko ngir euh, ngir nit ñi bañ koo fonk te loolu di jaare ci maanaam ci di ci di wax loo xamante ne la ko waral mooy euh, euh, maanaam di bañ dëgg bu évident di bañ dëgg bu évident voilà ak tamit euh, muy wax loo xamante maanaam ñu ñuy weddi ay muy weddi ay waxam parce que tout simplement dafay maanaam da ko nanguwul parce que tout simplement euh, euh, rëy la moo ko dugg wala bañ dëgg wala yu mel noonu yooyu moom dañ lay alag dañuy alag nitu yàlla dañuy alag waa ji voilà loola tax même xadis boobu na man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harb gis nga xadis bi ni mu waxe hmm. man aada ku noonu ku ma noonool sama wàllu ku ma noonoo sama wàllu donc da ko noonoo parce que wàllu mais waxul noonoo koo xam comme ansaari ñuy wax rek ni borom xam di wax ci ansaari xam nga ne ansaari euh, euh, ku leen noonoo da ngay comme li bi wax mais pourtant dañuy wax ne non noonoo googu mooy noonoo gi nga xamante ne li tax nga noonoo ko mooy de ansaar la. wala jàng mais pas comme ni par exemple ngeen am am ngeen am problème boo xamante ne diggante nit ak nit la rek loolu dara lu la ci ñu bëri nag xàmmeewuñu point boobu ñu bare bare bare bare xàmmewuñu xàmmewuñu point boobu pour ñoom moom diggante bii nga xamante ne yéen a ngi d'accord moom rek mooy bis boobu mooy sa alkane taxaw na <laughs> <laughs> <laughs> alors que parfois relation humaine moy dugg. voilà parfois c'est parce que <laughs> voilà li mëno ci and parce que d'accord ci et que parfois motax ngay gis ñu bari ni ci ci ñu bari di di di di di di ah, nekk benn nitu yalla ni par exemple duñu d'accord ci ci kii te kenn ku ci nek li ngay défendre ci ñom ñaar lu bax nga doon défendre hmm. mais sauf que kenn ki dafa joom keneen ki moom li mu xam ba tax mu doon wax wala muy def li mu def moo gën a kawe encore kii mun xam-xam yéegul foofu kii pour pourtant moom défendre charia bi moo ko tax a jóg moo tax mu noonoo nitu yàlla bi da doon défendre charia bi mais dafa comprendre yéen ni te te te te te te ak fiiram ci charia ak ak gaaw a emporté bu saa yu ñu laalee charia gaaw gi mu ci gaaw mayu ko mu mën a déglu waa ji sax ba mu pare maanaam yooyu tamit dafa mat a bàyyi xel yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel ñu bëri nag dañu foog ne après kee day noo kooku moom day alku yàqu na ba pare déedéet ah, ah, dara dara dara du ko ci fekk voilà mooy comme li si ab xaj daani wax radiyallahu voilà ñu noonu moom mooy yàlla comme noonu mhm. ba ma ba kii naan ko maanaam subhaani ma azama. Sayyid tamit dal na ko waaw. Hmm. waaw. Hmm. subhaani ma azama sha'ni. Hmm. gàcce ngàllaa maa man waay waay sama biir kër yi waay ñu ne ko da koo xam effectivement Abu Yazid tamit dawoon na. ba mu naan ba mu naan benn ba naan ko lii nga wax noonu ba mu naan ba mu naan loolu koy boo ko waxatee da may rek. tey par exemple bu yàlla defoon na ñooñu mu wax loolu ñooñu rey mais dara du leen ci fekk ci droit lañ ne moom nag am na cadre mu ko waxee nangam nangam mun ñii ñii munuñu woon xam lool wala kii xaalam moo leen permettre woon lool mais dara mais dara du leen ci fekk. waaw dañuy interpréter xam nga interpréter amu ci. <laughs> waaw. loolu intervention da ngay amul sax moom lii nga wax du nii acca nañ dagg bopp bi jeex na lii nga wax kat àtte bi mooy dagg bopp bi ñu dagg bopp bi mu jeex amul beneen amul beneen amul fii beneen solution voilà waa ji dagg bopp bi ngir défendre diine ji nag kooku mënuñu koo waxal kenn mënuñu koo ŋàññ ci dara comme ni nit ñi nit yàlla di faral di wax ci histoire waxal laaj boobu voilà ñi ko rey dara du leen fekk hmm. tout simplement voilà ah. eh, mot nay bàyyi xel mot hmm. hmm. nay bàyyi xel mais sans sans masse dañoo formé yi saa yi kii kay buy kii wax buy wax wala buy kii moom jàppal rek ni mu wax noonu la nangam alors que nit yàlla bi ci jëmi boppam mën naa juum nit yàlla moom ci boppam maanaam lu mu màgg màgg màgg màgg mën naa juum loolu yàlla tegtaluñu kenn ku lu màgg màgg màgg mën naa juum comme nag ak njuumte mën naa ne léegi waa ji bu juumee est-ce dama koy topp ci njuumte goo xam ne dafa fes njuumte gu évidente قال الأعمش رحمه الله رحمة الله له وقال ابن عباس ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه pour toi tu penses que façon wilaaya yëpp am na ko façon yëpp lépp lu ñuy xalaat ci xeetu nitu yàlla façon yëpp am na ko ibn Abbas radiyallahu anhu ànd ak loolu yëpp moom jàppoon na ne tisbaar tisbaar maanaam ci yor yor gi lay tàmbali maanaam tey fi mu toll imaginer kooku te ñëpp jàpp ne xam nañ ni voilà hmm. lool hmm. mais léegi imagine hmm. euh, wala al amash rahimahullah nga xam ne moom pourtant al amash que la soo Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullah euh, imaam yu mag yi la mais xoolal lu mu jàpp moom dafa jàpp ne koor mi ngi tàmbali bu jant bi jógee maanaam pas bu fajar gi xare mais bu jant bi jógee ce qui veut dire que lekk ba mën na lekk di naan ba moo tax imam Abu Hanifa ñëw seet ko bu feebaree alhamdulilah mu ko bu fi ñëw waaw pourtant imam Abu Hanifa bu fi dugg si <laughs> bu mu yegg si parce ndax xam nga ñoom déjà façon euh, ni ñu doon gisee affaire yu bari bokkul woon ah. te imam Abu Hanifa kenn du werante moom mooy kan hmm. radiyallahu anhu hmm. ànd ak loolu yëpp lu lu moo tax imam Abu Hanifa bi muy dem lu mu tamit ah waaw lan nga xalaat ci koo xamante ne moom musul woor te pourtant ñoom ñaar ñëpp ñaari dot lañ ñaari imam lañ yu mag a mag a mais ñun en fait duñ maanaam du dañ leen di mais no dañ leen di àtte ci naan kii moo wax dëgg kii waxul dëgg du loolu mais quand même ñu comprendre rek que ni ma ci jublu mooy rek juste que ñu comprendre que nit yàlla bi ci boppam lu màgg màgg mën na juum ci ni muy percevoir affaire bi. et que waruñu ko topp ci loolu quand bu juumee ci ni muy doxale quel quel que soit bi nag gis nga lii masalay koor la. Ibn Abbas mi ñu doon wax sànq julli la. même loolu waruñu ko ci topp. bu dee dafa juum dafa juum tout simplement. voilà. yéen ci bi sallallahu alayhi mooy ultime bi borom xam-xam yi. ñoo munu nit munu fee ñëwaat ba pare wax lu lu gën a wér li borom xam-xam yi ñu jëkk yi wax munul ne. voilà wallaahu a'lam wa sallallaahu